samedi 31 décembre 2022 journée eh bugal tongo si kom mara doomu jaamu gën jam ko doomu jaamu gën tongo si kom doomu jaamu gën bugal a bungor doomu jaamu gën bugal a bungor eh doomu jaamu gën bugal a bungor doomu jaamu gën doomu jaamu gën ne coppe tànk ba bugal a bañ na doomu jaamu gën bugal a bungor ñu ngi xeex ñoom ñaar paxate na ko bugal a bungor doomu jaamu gën doomu jaamu gën defal ndànk bul sarax saraxee combat bi foog mbot na mboñ foog bu ngor dal doomu jàmm gën foog bu ngor dal doomu jàmm gën laa ilaa da kaa teg mbot deuxième pied ay foog bu ngor dal doomu jàmm gën jël bu rëy la ko daan bu ngor dal doomu jàmm gën jël bu rëy la ko daan bu ngor dal na ko laa ilaaha illallah xoolal xale yi ngor yi xoolal ma xale ngor yi taxawal foog na taxawal foog na baal na oh. eh bal dem eh. andu loolu du loolu. eh lii lii du dara déglul ma wax ak ñoom barki Serigne Fallou dañuy sant yàlla yàlla mi mooy maye yàlla moo ñu may suñu borom mbiru sama man-man barki maam Seera Fall ay Baay Fall lañ ñun bu ñàkkee sëñ bi moo ñu xañ bu ñu amee bi moo ñu ñun loolu la ñuy dundee keroog damaa fii ñàkk ñu woy di loo ma ne ma foog nii foog naa foog na le man sama bopp man man xam naa ki ma doon mais damay sant man sama rakk Siteu man kooku yàlla sunu borom laa koy bàyyil Siteu yàlla laa koy bàyyil Siteu ba muy ñetti yoon man yàlla laa ko bàyyil Siteu dafa sori sama xol balaa may ñëw loolu man damay sant ñu ma àndal man li ma bëre fii du dara am na jëllay fi romb ñoo gën a rafet li ma jël nii mais maa ngi santaat suñu borom da di sant sama gaay bu baax démb bi ñoom ñangoor ñii ñëpp maa sama yaay dama woo léegi sama yaay dama woo léegi na ma dimbali ma ngir rasulillahi defal nànk bul préparer sa combat mais sant nañ suñu borom sant nañ yàlla bu baax yal nañu jig teguma fenn sama bët maa ngi sant nit guddi yëpp yéen waaw maam lamp maam lamp Seydou Daba Ndiaye maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax mais sama soxna Madou man sama soxna daa muñ barke Serigne Bamba sama soxna daa muñ dama ko jëlee kër gi yobu ko kër yaayam naka ngir yàlla toogal mu muñ loolu yëpp si xale bu ndaw maa ngi jëli di ko may di ko may sama doom fara billaay wallaay wa taalaay waaw sama gars yi waa Bambey waa Mass 36 Serigne Alla borom Bambey saa Touba maa ngi sant ñëpp képp ku may ñaanal oustaz ñëpp mais eh, li ci des à la yi doo. Malo eh, doo.